problème bi am mooy ñun suñ terrain bi lañ bëgg a récupérer bi nga xam ni si la ñuy entraîner parce que depuis ñu affaire bi déclenché Abdoulaye Matar Diop dafa waxoon ni daf ñuy recevoir bi mu ñuy recevoir ñu dem ba këram mu boole noog ka nga xamante ni pour géomètre la bi mu ñëwee ñu dugg terrain Mandé bi ñu duggee terrain Mandé mu ne ñu xool leen fu leen neex ñu xool fu ñu neex mu dagg bi mu daggee ba pare ñu wëlbatiku dans deux jours bi ñu demee ñu fekk fa mu gas fa ay teen. pour ñoom ñuy continuer chantier bi ñu xool nappe d'eau bi ndox bi fu mu nekk biñ ko amee ñu continuer ñoom li nga xamante ne mooy seen chantier léegi dafa am lenn désormais désormais dafa am lu am muy lenn jeex na c'est jeex na dootuñu def benn réunion dootuñu def déclaration ndax fi ñu waroon jaar yëpp jaar nañ fi kayit yi ñu waroon joxe yëpp joxe na ko état bi recevoir nañu jomaay yëg na lépp lenn moo am ñun jeunesse bi dinañ récupérer terrain bi suñu bopp par la force ñu du si xeex ñu man Colobane fii nii lenn laa xam muy courant muy tali lépp dañ xeex ba am ko terrain dañ koy xeex récupérer rek suñu loxo wasalaam. non non xale yi dama leen di euh, lancer un appel ñu dal ndax loo gis rek dal da caa baax waxtaan da baax ñu dal ñu toog wax li ñu wax je trouve que ne bu ñu waxtaanee wax li dëgg lii dëgg rek lu ko lal ak lu tax ñu bëgg koo jël ak Ablaye Matar ba sañ-sañ la am ba jaay ko SNHLM sans pour autant ñu yëg ci dara. ñu wax lépp les tenants et les aboutissants je crois que ne jàmm dina am xale yi mën a jot seen terrain maire bi mu mënu ci avancer parce que maire bi ñun nous sommes nouvellement élus bi ñuy ñëw lii dañ ko fi fekk kon nag combat bi dafa ñëw fekk si maire bi kon nag maire bi bu bu bu waa Colobane soxlaa maire bi ci Colobane lay taxaw mais amul benn parti bi mu ciy def lu dul taxaw fi dëgg nekk. ah ñun on a entrepris des démarches pour pouvoir récupérer ce terrain là euh, bëgg nañu ñu delloo ko mu nekk moomeelu association sportive et culturelle bi nga xam ne moom moo nekk ci koñ bi looloo waroon tey point de presse bi euh, mënoon nañu manifester not courroux d'une autre façon génn ci mbedd mi taal ay pneu sànni ay xeer. mais on a jugé de façon plus responsable tenir un point de presse pour alerter l'opinion nationale mais aussi bind ñi nga xam ne ñoom la ñu war a bind si aussi ñuy remercier euh, l'honorable député euh, bi xam ne dafa ñëw vraiment jàpp ci combat bi euh, situation yu mel ni à chaque fois su amee il vient en tant que représentant du peuple ñëw bokk ci combat bi donc ñu koy féliciter di féliciter ndaw Colobane yëpp ak magu Colobane yëpp ci seen taxawaay